asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant ku ci nekk fa nga toog fekk naa la fa ne la jàbb loxo maa ngi massawu sénégalais yi ci li nga xamante ni mooy mbas mi di Covid 19 dugg fi lëmbe réew mi di rey suñu yaay yi di rey suñu papa yi di rey suñu maam yi léegi bàyyeetul sax suñu ndaw ñi. mu nekk tiis nekk métit nekk lu diis loo xamante ni yàlla wàcce na ko suñu kaw di ñaan yàlla mu ñu ko wàcceel mu teggilaat ñu ko ci jàmm ak salaam damay profiter aussi ci occasion bi di jaale képp ki nga xamante ni ñàkk nga ci sa bakkan ak képp koo xamante ni ñàkk nga ci sa mbokk ñëpp ñi ci faatu yàlla yërëm leen xare leen ca aljana ya gën a kawe damay jéggalu aussi la presse sénégalaise parce que j'avais annoncé une conférence de presse mais vu le contexte sanitaire je ne peux pas vraiment dajale plus de 100 ou 200 journalistes dans une salle pour voir un man tamit qui participait, qui lui propageait ce virus pour profiter aussi de remercier la presse crédible la presse sénégalaise crédible les journalistes yi ils m'ont appelé depuis hier ils n'ont pas arrêté de m'appeler pour vraiment soutenir pour vraiment encourager et pour vraiment même donner des conseils Je vous remercie, di vous xam vous avez été très nombreux Alhamdulillah, rabbil alamin damay sant Yalla, bu je ne suis ni surpris je ne suis aussi ni étonné, je ne suis aussi ni vraiment euh, surpris. Je suis dans l'espace public, n'est qu'un activiste confirmé, n'est que quelqu'un qui défend le droit humain, n'est que quelqu'un qui se bat pour des causes nobles, n'est que quoi ça fait 25 ans, je lutte contre l'injustice, n'est que quoi lepp lo xamanteni wala ñëpp ñi nga xamanteni ni dañuy bëgg a ou faagaagal wala naxasal réew mi niñ bëgg mu doxé ma taxaw né dila barrer la route Quand je m'attendais à ce jour j'attendais à recevoir des coups c'est pas la première fois comme ils ont l'habitude de le faire alors dama ne duma def une vidéo mais il le faut damay commencer d'abord

ici à Thiaroye Azur pendant un an mu nekk koo xamante wax à mon insu il se permettait d'aller à Kaoulak, c'était gi sama yaay yendu fa des fois même fanaan fa suy nibi, djel khali sax jox ko ne ko yaay booy sama ñaan la djel si won, yow yaay sama sama ki tièr, pour ngeen xam li ñu ak mom, wala fi ñu jaar ak mom. kon ku mel su fekkente ni am na intention def lu bon wax dëgg yàlla ay la yëwan man mënuma ko xam mënuma ci am ñaaw njort parce que vingt ans du un an vingt ans du cinq ans la nekk nag ca gannaaw ceer ba ñu war a mën a toog ci otom pour mu enregistrer ma loolu lu ñuy dugg la peut-être après te ci poursuite dossier bi li tax ma ne damay def vidéo su fekkonte ni y avait pas transaction d'argent du ma ci mais da ngeen gis ci début vidéo bi mu am une transaction d'argent transaction d'argent bobu li ko waral du len ludul, dul ñëpp xam nañ ma ci samay activité à part mon métier d'artiste damay bay damay jaay auto, je suis dans l'élevage ceer momu, ñu seq mbirum jaay auto. mu gis sama benn auto, mu bëgg ko mais malheureusement tombé wuñu d'accord ci prix bi ba keroog mu gis sama benn oto Hyundai Veloster j'ai les papiers avec moi mu ne ma finalement jaay ma bi sama jabar la koy jëndal mané ko amul ben problème bi mën na la ki defal xewal ñu tombé d'accord ci 5 millions ah mu indil ma une avance de 2 millions bi ma indilee avance de 2 millions demaat tout 30 minutes woo nema dama suma kalpe sama carte qui et je dois 500 000 à quelqu'un mangi dois wàññeekuwaat nga abal ma 500000 bi ko d'accord mu ñëwaat ma jox ko 500000 bi garder les 1 million 500. film Si ngeen di gis ci début bi bi ma toogee ci auto bi ñu entre copains mu yëkkati 3 millions jox pour le reliquat nema ma la ko 3 li nekk fële ñaata la ma ne ko 1,5. 5 mu ne ma muy ñaata ma ne ko 4 mu des ñaata ma ko 500 000 donc vidéo bi leeral na boppam kon gis ngeen ko waaye juste que ni comme dafa indi woon jiixi jaaxa ci transaction d' euh, xaalis bi il fallait vraiment dire à vous les sénégalais que ni transaction d'argent, bi li mooy li ko wundu li mooy li ko waral pas autre chose Ouais ce site pourri bi nga vidéo bi am lum dag automatiquement dugal affaire bi ci visa bi nga xamanteni man ak sama xarit bobu nañ ko demander une aide pour évacuer son enfant en France ah ay way je pense que ni jambour sax dégg ngeen ni kilifa taxawu nako assister nako defal besoin qui n'a pas un ami qui a été ñëw solliciter automatiquement sur la vidéo la même vidéo gis me dis ma sur mon téléphone Commencez, vous sama ay pour le numéro du consul pour trouver un rendez-vous d'urgence un rendez-vous officiel d'urgence ah guy, je pense que si ku avez un visa tu ne visa vas pas appeler le consul et tu vas pas trouver un rendez-vous avec le consul Bon, demain ci consul bi lan nga koy wax consul jaay ma visa seetaan leen vidéo bi seetaan ngeen ko ay borom xel ngeen amul fennu fo xamante ni man ak Thier wax nañ ci ay jay ma visa jëndal ma visa et je pense que ni c'est trop sale ben site bu pourri taxaw xëy xaw ma lan la ci jublu pour faagaagal ay citoyens Thier nak bi nga xamante expliquer naa len fi jaar ak li loolu lu ñuy lijjanti la avec la justice ci site bobu ma gis ñu bind escroquerie trafic de visa gis même un jugement gis même que ni man dama am sa plainte sama de sénégalais fi ma tok di wax ak amul police bo xamanteni ni wala gendarmerie ne ma une plainte tu dois venir répondre ba fi may wax ak yeen dégguma ko amul ndax sequma ak ben sénégalais lu muy xeyé war ma mun porter plainte site boobu jugé ma te man dew tribunal taxawuma devant le juge ba juge bi génne ay verdict di ma di di di ma taxé de escroquerie ak de trafic de visa ah lolu sama gaay c'est un site qui est habitué à ces faits képp pourquoi xamante ni da nga pour taxaw empêcher à ces à à ces gens yi nga xamante des dañ fi nekk di diriger ci manque de respect ne leen du ci dal site boobu gis nañ ni jug pour défier bon pour défier yu tilim pour discréditer pour xëpp suñu der yu lu bon ouais bii paa nak ah duñ ci génnee noonu du yombee noonu dinañu ma wax ce site va me dire quand est-ce que j'ai été un escroc et ce site va me dire aussi quand est-ce que j'ai trafiqué de visa s'agissant de visa li ma ci xam mon groupe war a déposé pour une tournée Nous avons, vous avez un dépôt demain à 11h ma sur mon passeport yo ak les documents d'invitation le festival ou ñu concert bu dem présenter ko ñu juger une visa ñu dem suñu tournée Nous avons ci jàmm ak salaam damay wax vous les journalistes damay wax aussi la gendarmerie et la police allez faire des investigations ndax man Landing Mbessane Seck mës Ben taxaw ci benn ambassade ànd fa ak doomu aadama budul Chat, mi ma seqal liggéey wala gajaga wala zmasta suñu DJ wala suñu Musicien yi ñuy àndal taxaw naan damay demander visa wala damay ñaan visa dem leen cette investigation parce que c'est très important il s'agit d'une accusation grave et les Sénégalais aussi ont besoin de savoir et de comprendre ñan ñoo nekk ci intention de lenn l'udul s'attelle ak des honnêtes citoyens nous avons aussi notre justice mu autosaisie sur cette affaire parce que warul nous rek tamit ci nous site après fi auto-saisirons. je suis disponible je ne bougerai je ne bougerai pas de ce pays magnifique. ngi fi tukkiwu ma daw ma fenn et j'attends une convocation venant de la justice su fait ni lii ñu may tudd dama ci laale wala dafa am faites votre travail faites votre travail et pour le moment ñi nga xamante ni mes camarades de combat pour ne pas les gêner je mets en suspens mes activités dans le mouvement Yanamar pour mettre l'en à l'aise, pour voir ni que cette affaire n'a rien à voir avec Yanamar avec affaire de de de je sais pas quoi nous ma ko expliquer maintenant le li nga xamante ni nag mooy lu a jëm mbirum justice tamit ah duñ na yasar on a consulté nos avocats on a parlé avec nos avocats ils vont nous liguer au moment où je vous parle et ils vont def li nga xamante ni j'avais pas besoin d'être très long parce que cette affaire est simple Ni ma j'ai pas besoin de passer dans un autre chemin pour expliquer li nga j'ai juste besoin de dire les choses telles qu'elles sont et eh, moi li nga sais pas mooy li ma fi wax Ça m'a leur l'heure est grave Nous avons suñu xel bu baax a baax ci li nga xamante de xew Sénégal ñu ngi jub ñu ngi jëm en 2024 nous ngi aussi ci ay élections locales je pense que ni le débat le plus intéressant ou le sujet le plus intéressant c'est de communiquer essayer d'inciter les jeunes pour que nous nous inscrire sur les listes électorales pour préparer une bonne relève pour des élections aussi transparentes Ce nga est le sujet de qui 2024 a dañ troisième mandat Ce qui est le je je n'accuse personne mais vous faites ni lolo tax ngeen bëgg a divertir les sénégalais man kilife, gisuma luy de ba

pour peine perdue je suis prêt comme toujours vous pouvez tuer Kilife et je suis prêt pour y laisser mon nez mais vous aurez en face de vous plus de 5 millions de Kilife. cette jeunesse est éveillée maintenant cette jeunesse ne va pas être manipulée cette jeunesse ne va pas être baïonnée. cette jeunesse nous allons vous barrer la route donc vous faites qu'il qu'il moins sensible cible pour vous éliminer vous allez bâillonner la jeunesse vous vous trompez donc je ñaan def def sénégalais remercier de près ou de loin ils m'ont soutenu sur cette épreuve dit encore remercier Wat. nga j'ai reçu votre message ci sama messenger ci sama Facebook ci sama Instagram qui sama jumtukaay yi may remercier et merci encore pour votre soutien Kilifo est là et il ne va jamais trahir le combat je vous fais confiance faites-moi confiance je vous remercie yàlla na jàmm yàgg Sénégal one love les amis